xool leen lii rek xool leen fi tefes gi commencé xabru bàyyi nii fii la tefes gi yemoon fii ngeen gis muy tooy nii la tefes gi yemoon fii ngeen gis muy tooy la tefes gi di yem muy dem di dem maa ngi dem de maa ngi dem de muy dem di dem di dem di dem defe woon di dem di dem di dem di dem di dem di dem barkiloowu laay bàyyi laay mooy yaa rasulilaay waay ndox mi dem ngay gis tefes gi di dem bàyyi laay mooy yaa rasulilaay yaa ngi dem ba léegi taxul nga taxaw de bàyyi laay mooy ngay dem jën yi sàbbal bàyyi laay mooy yaa rasulilaay yaa ngi dem ba léegi yaa ngi dox di dem bàyyi laay mooy yaa rasulilaay yaa ngi dem yaa ngi dem te ba léegi yaa ngi ci def bi kenn du seet naa ne moom alayhi salaatu wa salaam barkiloowu laay day sóobu ji la Thank you.